L'appartenance du village est donnée par le Père. Vous souffrerez un peu. Que pas très loin, mes parents de Ndouloumadi, dont mon père vient, sont mécontents du fait que je n'ai pas pu passer par Ndouloumadi. Je comprends leur colère, mais j'avais déjà indiqué que j'allais les recevoir, peut-être même ce soir à Matam, et leur dire pour cet impondérable. Ma moitié est même si dans cette moitié, les 25% reviennent encore à Ngidjelon de par la mère de mon papa. Donc je suis quand même ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ziar leen fële seen dulumaa ji la ñuy dem ki nga xamante ni mooy président Macky Sall xam ngeen ni foofu mooy cosaanam dëkk boobu nag dañ ko doon teeru foofu di ko xaar pour mu ñëw foofu moom mi nga xamante ni mooy président de la république Macky Sall bi ñu jotee information nag ki nga xamante ni mooy njiiti réew mi du fa mujjee jaar ci la askan bi yëpp mer nag wutali fële ca kër gi nga xamante ni mooy Macky Sall fu mu dëkki foofu nag la ñu taal jëppet askan bi yëpp fi mu nekk nii ñu ngi mer mer. bu tar di wax ni président jotul def foofu dara donc nag dañ ko doon xaar pour mu ñëw foofu ñëw woon ko ni euh, doléance bi nga xamante ni am nañ ko ngir mu indi ci ay saafara waaye bu ñu demee ba xam ni président du fa mujj jaar ci la ñu mer nag dem taali këram ki nga xamante ni mooy président Macky kon am na jafe-jafe ak askan bi nga xamante mooy nduluma ji fi mu